bu dee saar wi ci tegee muy suratul kaafiruun yàlla jagleel ko ñii suul jëf ñii suul jëf euh, alkaafir mooy koo xam dafa suul jëf euh, suñ borom tabaaraka wa taala doomu aadama ni mu ko jaarale ci biiru yaayam ak ni mu ko sose bu demee ba màgg taxaw di weddi suñ borom tabaaraka wa taala weddi xéewal ko yàlla defal yépp loolu suul jëf lañ koy tuddee mooy ñu ne yéefare dañoo waxoon yonante bi alayhi salaatu wasalaam Euh, wax dëgg léegi daal liñ bëgg mooy ñu def la nga nekk sunu buur jox la alal yi alal yi euh, jox la kilifte jox la lépp nag te ñu fexe ba ñu it euh, léeg booy jaamu yàlla rek ñu ñëw ànd ak yow su ko defee ñu it bu ñuy jaamu sunu yàlla nga ñëw ànd ak nun maam daal ñu maslaa ginnaaw bi biñ jéemee tëkku yonante bi lu ñu xas lu ñu wax ko ko taxul yonante bi bàyyi li ko yàlla yebal ñu ñu ne ñëw maslaa nag boo bëggee nguur mën nañ laa jël ñun ñu xaw a nekk lu mel ne say jaam rek nekk say surga ngay wax ñuy def lépp loo bëgg daal jox la alal yi jox la jigéen ñi ñi la ci gënal nangam nangam yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam nga ne eh, suñ borom ne ko ne ko tontu leen xool waxal ne ko ne yaa ayyuhal kaafiruuna yéen ñi nga xam ne da ngeen ne goree di bay suul jëf laa abudu duma jaamu maa taabuduuna li ngeen di jaamu benn xakim nee noonu laa abudu du ma sëggal bu taabuduuna li tax ngeen di sëgg man du du ma fa dem di fa sëgg mooy seen xaram yooyu kon nag di mas laa naan loolu nag am na loolu boo ñëwee ci Sénégal gi bari na fi lool da gis koo xam ne li muy woote dara du ca dëgg waaye du tee euh, day bàyyi ba keneen woote mu dem ca ngir bëgg bu ëllëgee moom it bu wootee kooku ñëw bokk ak moom tappaleem yooyu loolu lay am euh, day bari yoo xam ne yu ñuy woote ay nit di leen topp ñuy sànq nit ñi waaye da nga ay nit ñoo xam ne dañuy nit ñu fonk lañ ci wàllu diine dañuy dem di wuy ji wooteem boobu su ko defee nit ñi jàpp ne kii kat kii li nekk dëgg la ndax bu du doon dëgg diw sàng mii du fi ñëw ci ay borom xam-xam ak ñoo xam ne ci wàllu askan kon laa abudu maa taabudu du ma mas maslaa nag du ma yóbbee ma ñëw bokk ak yéen li ngeen di jaamu wala antum te xam naa ne yéen it yéen it aabiduuna yéen du ngeen jaamo jaamu gu sell maa abudu lii may jaamu même bu ma nangoo nit ngeen ñëw di jéem a sëgg ka sigit loolu da koy def ngir maslaare waaye xam naa ne jaamu yàlla gu sell moom du ci am wala anata déet man aabidun lu yàgg-yàgg may jaamu ci ci luy ñëw maa taabu maa abattum yéen lii ngeen di jaamu wala antum te xam naa ne bi it aabidoona du ngeen mës a jaamu ci lii di waaj a ñëw mooy au futur ma abudu lii may jaamu am na ñu koy firee noonu moom daal la lakum am ngeen diinukum li ngeen jàppee diine te dara wéru ci waliye ñeel na ma diini diine islaam ji nga xam ne ku ci jëpput boo liggéey da ngay da ngay da ngay perte waaw kon gis nga li ñuy tuddee masla loolu day am léeg-léeg day am li ñuy tudde mu jaama la nga ànd ak nit ki daal ci loo xam ne dara du ca dëgg da xam ne kii ay tappale la nekk waaye ndekam dalaa lebal bor xëy na yow ba nga xewlee moom ñëwoon na yow it faaw bu xewlee faaw da ngay faaw da ngay dem donte xam nga ne li li muy woote dara du ca dëgg yooyu moom lu yaatoo yaatu la buntu la boo xam ne mëtta maslaa